mbokki xibaar bu yees soxal rek journaliste d'investigation boobule di Pape Alé Niang moom mi nag di Pape Alé Niang ci biir kontam Facebook la xam ne ni daal dañu ko wóolu convoqué ko suba ci bésub dibeer gi ca section de recherche moom nag di Pape Alé Niang moo ko posté moom ci jëmi boppam li waral boobule convocation kenn xamu ko wala nag kenn xamagu ko sax mënees nañ ko waxee noonu wante daal lu ñuy njort ne daal mooy daal mën na nekk nag dafa am rek rapport ak live yi muy faral di def rek jëm rek ci mbirum Ousmane Sonko mi ñi teg loxo niki démb ca këram googule nekkee ca cité kër góor gi ngir ñaari infraction di vol de téléphone portable avec violence sur une femme gendarme et appel à l'insurrection maanaam daal càccum téléphone portable ci benn homme de tenue bu jigéen bu ànd ak violence ak ka woote fippu laata rek ñu koy placé à garde à vue du côté yendim ndax nag ñu bëri rek ci yenn observateurs yi li ñuy jàpp rekk mooy daal live yi muy faral di def rek day appuyer kile di Ousmane Sonko lool daal lañ jàpp ne daal mën na nag nakaral nguur gi ba ba waral sax ñu teg ko bile acharnement judiciaire waaye nag raison yi daal dañuy jàpp ne rek kenn xamagu ko ab lu ci mënta nekk itam rek dinañ ci dellu si waat ci fàttali nag lii du gulet ci journalist chronique ci journaliste d'investigation boobule di taskatu xibaar bi lee di Pape Alé Niang ndax nag téye woon nañ ko fi teg ko loxo ñaari yoon ci weer yi weesu ba mu tëdd ñaari weeru kaso laata rekk ñu koy bàyyiwaat ba def ko sous contrôle judiciaire ci fukki fan nag ci weeru janvier ci at bi ñu ne lañu ko mayoon rekk ab bàyyip négandiku booba tey nag ñu bàyyi ko mu mu jëlaat liggéeyam di ci def liggéeyam waaye rek mel ni na daal daal di nañ koy rek convoqué suba ci ba di beer gi leneen nag lu ci tukkee rek ci ay xibaar dinañ leen ko rek yaatalaat file rek ci Dakar Media TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax nag ci teewlu gi ak topp gi